échauffé wu tuuti waaw acca jël ko jël ko jël ko échauffement bi acca ñu dem <laughs> waa ci lone baxaw jum daanaan a ngi nii rakk ju baax a ngi nii nit ku social a ngi nii nit ku xam li ko war nit koo xam ne tey jii nii képp ki nga xam ne mi ngi ci quartier Sicap bi bu loo nga am talent nga war a dem da ciy jàpp tey jii nii yoruma sax les mots pour mun ko wax parce que moom xam na man xam naa bi may door ci audiovisuel bi di ci dem lu rafet la ci doon wax di ma orienté Baxaw Diouf maa ngi lay nuyu di la ziar. grand as maa ngi lay delloo ziar di rafetlu kaddu li nga wax rek aussi laa lay wax ah. yooyu tamit nit ku baax nga dëkk nga suñu koñ Liberté 5 defar koñ bi defar équipe nawetaan bi defar xale yi defar fa ay jeunes ba tey macha allah donc aw ma lu ñu lay waxal rek yàlla na la yàlla fay donc di rafetlu aussi liggéey bi ngay def gis nañ lépp. waaw muy mbégte nga gis tey ci nii li Ilimane Lam def tamit parce que lii dafa nekk loo xam ne tey mën nañu wax ni commune u Sicap yëpp ko defal dëgg la Ilimane ce dafa nekk loo xamante ne ne dafa def pour Sicap yëpp lay wax wala pour dakaar yëpp parce que tey lu mel ni bijou bu mel ni du waa Sicap rek ñoo si bénéficié wu évidemment ñeneen dinañ si ñëw aussi pour bénéficier wu donc dafa defar pour le sport du Sénégal dafa defar pour sport dafa defar pour sportu euh, Ndakaaru pour que tey tey ñi fi dëkk ñëpp muy Sicap Liberté 6 Liberté 1 ba Liberté 6 tey bijou bi nekk na loo xamante ne si ñoom dañ ko yàggoon rêvé na tey yàlla def na sotti na donc dañuy wax bravo à Elimane la kontaan nañ ci yow merci beaucoup As chaque jour rek comme ni ma koy waxee muy mbégte rek a contentement ma taxaw ak nag daga ji muy nit koo xam ne nit ku baax la nit ku nekk ci commune Sicap bi nit ko xam ne mën nañu wax ni kenn du ko présenté Sénégal damay wax sax le monde entier Daga ji maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu wér. waaw di wax rek tey jii nii dafa am benn bisu boo xam ne seen doomu ndey muy Ilimane Lam daf ko def fii ci quartier bi def ko ci terrain bi te ku xam Daga ji xam ne yaa ngi dëkk fii boo jugoon da ngay jàkkaarloog terrain boo xam ne sablonneuse la tey jii nii ngay yeewu di jàkkaarloog terrain boo xam ne macha allah ban sentiment nga ci am. waaw di si kontaan di ko rafetlu di si sant yàlla di ci gërëm tamit Elimane si initiative bi terrain bi fii au tout début àll la woon ñun ñu dëkk fii ñun nag suñu grand yi ñoo dindi woon ñax yi dindi xeer yi tout ba def ko terrain li mu la wax ne si année soixante-dix yi la avant année quatre-vingt yi période boobu lañ ko def ba tey ji nii mu jóge ci àll dem ci terrain suuf ba tey mu nekk terrain gazonné donc avancement la àdduna noonu la day progressé ñu ngi koy remercier ñu ngi remercier waa Liberté si si jàpp ñëpp équipe am ak waa ASC e bi ak dëkkandoo yi xam nga parce que ñëpp dugal nañ ci seen loxo quoi mais di ko remercier moom mi am initiative. dëgg la muy mbégte rek tey nii suma xel nag dafa dem ci Ablaye Touré doon entraîné fii tey ji nii xam naa ni lii mu fekke woon ko ah, doon na baax waaye sunu borom moom bu soxlaa ñu ñaar. waaw loolu moom li wax moom lu rëy la parce que Touré moom ñëpp xam nañ lu mu liggéey ci football ñëpp xam nañ euh, lu muy li mu doon ci Sicap bi ñëpp xam nañ kan mooy Touré. terrain bi yogoo entraîné na fii yoonu ndam entraîné na fii ak ñeneen ñeneen te ñoom ñëpp amoon nañ seen terrain fii parce que Liberté ñetti terrain la woon mais après bi tali bi ñëwee. ñoom ñëpp dañ doon ñëw di kii fii te Touré ñëpp xam nañ ko si football ñëpp xam nañ ko si sikap ñëpp xam nañ li mu def donc euh, di ñaan yàlla fi mu nekk yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana xam naan bu ko fekkoon dina kontaan trop dina kontaan trop donc euh, euh, waa eh, eh, naan lii suñu alal la lii pour ñun la nañ ko sàmm nañ ko sàmm nañ ko entretenir autant terrain bi que alentour yi léegi dina indi liggéey yu bëri am na booy yu nekk fi Sicap yoo xamante ni dinañ si liggéey ñu bëri nañ si gis seen bopp donc suñu yëf la bu ñu la defalee lu del lu mel nii tamit da nga sàmm tamit comme ça xam nga mu doon njëriñu ñëpp waaw merci kontaan naa ci yow gis naa respect